wóor sama ndey ay wóor ay wóor what is the problem yow pourquoi gis la di am maata boobu quoi yow tamit. yéen eh man amu problème de c'est que suñu kër mag maa doo nga fa nekk te temps yëpp sama papa dafa dem voyage yow yow loolu waxoon naa la ko. xam naa loolu mais ku bëgg akara ñeme kaani tamit. xam nga affaire bi ñu ñaar la. cause man père bi xam nga fële USA bu ñu nekk xam nga. day fiir du nangu ñu wax ak jigéen ñu jege jigéen man yow yaay premier jigéen bu may téye loo xam ni sax xuma laa di waxee ak jigéen non je te jure. déwén yow sant. non waxoon naa ko tamit man di laa sant Prince di sa mbaap moo tudd allemand quoi di leen sant loolu xam ay almadi yi gaañ gàlle yi dañ koy dañ koy baatare nii quoi xam nga mm-hmm. waaw oto yi dañ koy war di teggi war di teggi xaalis xam nga xaalis nga jooy quoi ndax nu koy nu ma koy dépassé quoi. man na su ma sañoon moom suñu relation xaalis waru gaalal parce que bu dee xaalis man yor naa ko yow loolu war nga cee xam dara. man benn ci kër laa. non juste loolu lu tax moo ko xam rek mooy loolu. waaw pour wane la que su ma toll quoi en plus nar naa la defal. xam nga yooyu samay plan quoi xam nga genre. waaw te mun naa laa mun naa laa wa dara quoi tu peux compter sur que man seen genre yooyu wax nan la tuddee sax. nit di wax lu amul genre yi nan la. fen waaw man yooyu ba ma ñëw Sénégal ba tey maa ngi laajte mooy lan xaw ma ko quoi xam nga ci compter sur ndax damay dégg jigéen ñëpp ñu laa déggoon ñëw moo boobu ay fen fen fen quoi xam nga xaw ma nu demee quoi. Mm-hmm. waaw ah. mais xam naa demee incha allah moom damaa bëgg a delluwaat. dellu teel na de. Ah, sama benn sakos gain laa fàtte damay demee ñëwaat yow tamit. da ngay dellu nga bàyyi ma fi man kese. suñu bon bi gain xamal moo ko daan jël yi xamal te en plus daf feebar xamal rek il faut ma dem ñëwaat sakos bi rek. Hmm. samay biling biling moo si nekk xamal mënu ma kaa ñàkk tàkk tamit ah, loolu la rek si yow tamit ma dem di la tamit. wóor sama day ay wóor Klopz nag gaan waaye temps bàyyi nga ma gaan loo ma déggal gayn <laughs> ma laa bàyyi loo ma déggal gayn non non déggul ma la dara xam nga dafa yow mënu laa bàyyi ah. yow sama élément te da ngaa bokk si booy temps yi war naa la sama feebar bi bi ma dal quoi dagantaan booy temps yi buntu bu ma fëgg day dëgër këcc day wow koŋŋu mooy gën a dëgër béton armé booy boo taxawal da lay jànni wala mu ci watu la taman loolu taman loolu ci fin 2018 dama commencé dëkkale dañ lay refiler booy affaire gars yi lii bu bees bi gars sistem bu bees bi. maanaam xoolal koñ yi yëpp bu fi nangoo dëkk. koñ yi day suur ndaanaan banlieue. Hmm. nga dem dëkk feneen. Hmm. booy man xoolal maa ngi si yeneen gars yi. France lañ ma woowee léegi. Oh. xoolal damay yëg di wàcc xoolal te gaal seen bousee wu ma ko. Ya, te bëgg kill de bro te moom sama daal yi xamante ni booy démb laa démb laa ko ragal non allah yow ya, ko jàmm oui ça va madame ça va cool en fait mais suñu oto bi fële la gars yi mënu romb fii fii amul yoon fii waaw fii de moom fii de moom waaw fii de daan na yoon de mais sonos yow mool nga yow xanaa yow da nga ni lu mel nii non man dëkkuma fi moo tax foo dëkk man almadi laa dëkk. oh eh, almadi almadi waaw waaw. yow tudd sax yow. Mia. Mia. non man Mia yi ya, xamal tax ñun nangoo mool quoi. Uh-huh. boy yow yaa ngi mel per boy barki sëriñ alaaji ñu ngi ñaan. man pourtant sama xarit bii nii sax moom am anu na boy bu tudd Mia mais boy bi nee na almadi la dëkk affaire yooyu noonu. man mii de almadi laa dëkk. danaa si gën ma xool. boy bi prince. waaw boy ça va. ça va kii du prince. man prince waaw kii wax nii prince. maa jaawale noonu. xaar du branchement ah, yow xanaa demoo xanaa waxoo woon ni démb seen vol bi dafa waroon a dem dafa waroon a kii de. dellu non suñu avion moo paas Nagasaki gain moo paan Nagasaki. mais loo fi def fii ak ni mu bizarre nii. Ah, almadi nga jógee ba fii. no non non non non non non kii yow yow dellu yow fooy dellu ak ak ak ak loo fay def. kii fii la dëkk kii man moom ñoo bokk fii pukus bu ñuy fanaan fii man ak moom. fii man moom fii lañ koy caafee fii lañ koy defee lépp. gannaaw xam naa la ñuy def. danga may téetal fii yoon boo xamante ne mën naa fee génn. kay instant foo jaar yoon la yoo koy jaaral fu la neex instant kay. oh te te te non ma du sax. non. mi ngi dem kay. boy jàttu day ka la nax. boy xaw ma lan de mais boy sa mbaan mi boy xoolaat boy yow sànq fi nga doon wax sa mbaan mu teg nga yor bu baax kii mais mbaan mi daa mujjee nëpp. non presse nag yow booy da ngay jëm ñax nga naan xaw ma avion bi moo daanu karang karang boo yaa mën a fen dëgg dëgg dëgg dëgg yaa mën a fen yow de concours fen bu amoon man fu ma dégg ne yaa ngi inscrit concours fen man du ma ci bokk maa ngi ñoo fekk ci la mais xam naa <laughs> wuy sama ay wóor ay ay wóor ay